seeni mbokk ak seeni xarit dañoo tàmm lool di leen yónnee xaalis application Tab Tab Send mooy solution bi yéen ñi nekk ci Europe bi moo xam France Italie Espagne Belgique Allemagne ba sax pays ba frais d'envoi 2 euros dong la seen ay mbokk mën jot ci xaalis bi ci seen calpe Orange Money International wala seen compte Wizall sans aucun frais de retrait. te li ci gën a neex mooy yéen ñi nekk États-Unis Canada ak Royaume-Uni tap seen daf leen indil mbakkuus waaw ak lu ngeen mënti yónnee du ngeen fay benn frais zéro frais d'envoi zéro frais de retrait ak TapTap da ngay dund lu la neex. Baye Cheikh maa ngi lay siyaar. ñu ngi doon siyaar bu baax a murit bi. am nga jàmm. baax a baax. sa teewaay fii ci Grand Théâtre lu ko waral. Euh, kontaan rek te mënu ma fay waral bañ a ñàkk teew ndax sama sama yaay soxna Aïda Saliou sox kerek maanaam ma xool euh, benn émission bi ma ñëwoon Dakar ma ñëw soxna Aïda mu teral ma. defal ma lépp ba jëndal na ma téléphone defal ma lépp ñu am foofu réunion ci këram mu ma euh, Mouhamed Niang mi ngi waaj ab bis te mënoo cee bañ a ñàkk ñëw ñu waxtaan ba tënk ba tey jii nag ñu daal di ñëw kon kontaan na lool baax baax a ñu gis ne yàlla yàlla moo def ci xolu jaamu yàlla yi ñu ma ñu gis ne yàlla moo def ci xolu taalibe yi barki démb ñu jox la oto ana oto bi. oto bi mi ngi fa waaw sama xarit. Omar Sow moo ma ko jox di ko sant bu baax a baax di sant Boucher di ko sant bu baax ndax lépp moom la tey bu ko neexoon mën na maa gis rek may yëg sama taxi mu dem yoonam mais defu ko mu taxaw woo ma ma ñëw mu lijjanti yooyu ba affaire bu sot kon ñu koy sant bu baax a baax di ko euh, jaajëfal bu baax a baax a baax di sant tamit soxay bu tayër nga xam ci lii ma sol moo ma ko ñëwal ak Ousmane Ndiaye waa Ngaye ñoom ñëpp waay Baye Cheikh sa digganteeg taalibe gis nañ ne ñëpp la sopp macha allah sa digganteeg taalibe sëñ Touba yi. ndeysaan loolu di sa bopp ndax xale bu ndaw laa sëñ Touba la lii sëñ Touba ko def si man sëñ Touba moo ko def si man man xale laa te samay moroomu xale ñi ngi ci ñi ngi taxawaalu ñi ngi taxawaalu maanaam moo koy def. Sëñ Tuubaa mooy xëcc ku ko neex mu def ko kon ñu ngi sant Sëñ Tuubaa bu baax nañu sëpp nañu ñëpp àndale sant nañu Sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax am nañu yëg Sëñ Tuubaa bu baax a baax. Baye Cheikh ku ma dem naa ko laaj Baye Cheikh lu Sëñ Tuubaa defal. Sëñ Tuubaa ah non li ma defal bari na non Sëñ Tuubaa mënu ma wax li ma defal daal non Sëñ Tuubaa li ma defal baax na loolu. jaajëf Baye Cheikh. amiin ah. gisee Dakar Buzz. ndeysaan Dakar Buzz waaw ah, ah, ñoom dama samay xarit lañ samay wëllëre lañ. ndax màggal gi soxna si euh, dalaloon na ma fee Touba waaw ami ami soxna ami ah ñu ngi lay ñaanal yow tamit nga am ko di la ñaanal bu baax daamari di la ñaanal alali mu ñëw baax jaajëf waay يشقوا لي خيرنا المعينا عطيتي من الإله والنبي كليتي كبر وصافة النبي توفيق دين خاله والخاو خد أبليالي ما لهم بخامو بدأت لي اليوم برب الخيبة أعادني ممن علوا الخيبة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 وابل من بي يناجي ما يرم ربي بنوح وبإبراهيم لغفر ذنوبي واكفني الرجيم وكن بموسى وبجاهل عيسى واقيني دنيا وأخرى بوسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليغفي معنا خساخب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جلي بالإخلاص والتوفيق بعقل عثمان عقل النورين وبعلي الوالد ستين حبلي في الدنيا ما أخرايا سعيد وابن خوف نجني من كل ما أخاف من فتني وبأبي عبيدة لما يفت إلى جنابي واكف عني ما يبت بعق عبد الله نجل العم أي ولد العباد كثر علمي بعق عبد الله نجل عمره عنك في دابا ما يجر ذرة وبن مسعود وجاهني سلام خذني بلاء ودر عين وكلام يا ربنا بحرمة الخفاشي وأمسة عنك كل باسي بحرمة الحسن والعسين جلي في الدارين بالدارين بحرمة القاسم ثم تاهري سفي سوائر معدمائري بحرمة الطيب إبراهيم أدم علي بشرا وتكريما بجاي فاطمة أتي نفسي عن كل ما يجر لي لغبسي وبالرقية وزينب اكفني أترد والعجاب كل زمني وأمني الدنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم وجلب النعم بأوس بن عامر العربي واقب مسروق تقبل كلبي وبالربيع وبجاه الأسود حبل استقامة وخوم أودي بآمر بن عابد الرحمن وبأبي مطلمة الخولاني جلي بالغفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة بأحسن البصريات قبل الورى والانسلاخ من عوايا والبدع وبأبي هريرة وبي بلال وبي شعيب رب جلي بالنوال وتا تقبل وصفني من دائي سرا وجارا بأبي الدرداء بحرمة المقداد ثم خالدي وبسبيلي أولني مقاصدي وبأمير المؤمنين عمرا xindi makran wasaqan wa xarab barka Borom Tuuba jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan naa loolu jërëjëf Baye Cheikh naa loolu jërëjëf Baye Cheikh may sant soxna Aliou Saliou Baye Cheikh bëgg nañ de te ni man bis bi jomb ma ñëw ci bu baax a baax ndax daara ji ñu nekk Serigne Saliou lañ ko kon bis bi na maa ñëw di sant si eh, soxna Aida Saliou bu baax a baax kon nag eh, bisu Serigne Saliou yaakaar naa Serigne Saliou war cee bañ a jàng ñu jox Serigne Saliou mu ñam tuuti rek après ñu daal di tëjeeri bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يلاه بالمصطفى سديد يلاه وبقليلك إبراهيم يلاه وبكليمك موسى سالق القدر وبزغيب وإسماعيل يلاه وبسليمان نوح نون ذا اليزحي وزكريا يعياه يلاه هارون يوسف إلياس وآدم دام وداوة الكفل عيسى لوط يلاه ويوسف وبإسحاق وغيرهم من أنبياء ورسل لك يلاه وبالملائكة عند مذمتهم جبريل إلي اللهم وذاقي بالنقي إسراء في لقاب دار وإن قلائق عذراء إلي اللهم وبثغابة ثم الأولياء معا والعاملين من أخبار اللهم وبالصديق وبالفاروق ثم بذل نورين ثم بذتين اللهم بمالك ذي المذاهب ذا ذا غياب عن يفد أحمد ممر الله بالأغوى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 jërëjëf liman lillahi bilaqiiqi nam subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barke Serigne Saliou jërëjëf